Euh, maître Elas Diouf a maître voilà comme maître Diouf on va faire la confrontation. notre cliente est sereine. elle est elle est elle est est là derrière moi. voilà vous voyez derrière moi. voilà non non non non voilà comme ni l'avez ko Diouf est ngi Qui est Adji voilà ki ngeen di gis nii mooy mais Adji Sarr Adji saar a ngi noonu suñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne Maître El Hadji Diouf yëkkati na ko moo di moom client am elle est sereine elle est moom fas yéene naa jàkkaarloo kii di président Ousmane Sonko. gis nga ko kii di Adji Rabi Sarr moo sol noonu wàcc na wàcc na ànd ak Gabriel Kane. ki avocat am di maître El Diouf mom moko jitu duggu ci beni auto mais hadji sar wadja ci beni rams voilà hadji sar ngi ak Abissar accompagné de Gabriel Karitambi la Andal ngén gis ko non ci image voilà des images exclusives quand même tout en rouge mu ngi taxaw di taaxirlu mom Adji sar on ne sait pas pour lu muy xaar sank rek ñu gis son avocat muy dugg si ci ci tribunal bi mais de l'autre porte hein qui se trouve au à côté de la prison de Rebeuss mom Adji sar mu ngi non nak moom duguna donc euh, rappelez juste que Ousmane Sonko également est arrivé sur place il est entré également de l'autre côté hein, du tribunal, du palais de justice de Dakar. Et donc on peut dire que pratiquement les deux personnes qu'on attendait sont, sont actuellement sur, euh, sur place. Voilà, donc euh, tous les deux ont été convoqués à 11h. Pratiquement on va directement donc euh, entamer les auditions.